ami internetu AG Pro TV ñu ngi amaat contentement ak mbégte bu baax a baax di dajawaate yéen rek ci seen info du jour waaye képp koo xam ni abonné goo ci seen bi ñu lay wax rek nga daal daw abonné te activé rek li nga xam ni moom mooy eh, close de notification bile ngir ngeen di man di am suñu ay vidéo à temps dañ koy rek daal di doore ak 8 mars bi rek muy journée internationale des droits de la femme mu nekkoon nag journée boo xam ne euh, jigéen ñi Sénégal wala jigéeni àdduna bépp rek euh, dañ ko daan euh, màggal mu mel ne nag ki nga xam ne rek moom moo di artiste boobu di Ndiolé Tall gannaaw rek ba mu daal di jëlee rek ay don daal di koy yóbbu fa li nga xamante ne rek moom mooy ci prison camp pénal moom nag Ndiolé Tall moomu lee dañ ko rek daal di tere rek ngir mu daal di rek dugg rek distribuer li nga xamante nii moom mooy. Euh, don yooyu ak ci yi nga xam ne rek ñoom ñooy euh, détenu yi ba tax na rek mu daal ci yëkkati ay kàddu euh, dal di koy métitlu bu baax a baax a baax ndax daal dina xam ne rek loolu nag rafetul tey rafetul suba te nag doomu aadama nag loo ko rek jàppale rek maanaam rek daal duwul doy ba tax na kon nag du woon yoon rek ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy chef de l'ordre yi ak ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy garde pénitentiaire yi rek daal koy tere lu ni mel ba tax na rek li nga xam ne rek daf ko jëndoon ci ay matériel di nekk ay don boo xamante ni rek daf ko waroon a joxe détenu yi foofu ca camp pénal euh, noonu rek la ko daal di euh, perte waaye noonu rek la ko daal di daal di delloowee xëy na nag mën na ko dal di jox rek ay taalibe wala yu ni daal di euh, mel ki nga xam ni moom moo di Gabriel Kane rek moom nga xam ne des rek dafa daal di nekkoon ci ginnaaw ki nga xam ne rek. moom moo di Adji Raby Sarr moom nga xam ne rek moom moo daal di nekkoon rek ki nga xam ne moo daal di am jafe-jafe boobu dox ci digganteem ak ki nga xam ne rek moom moo di Ousmane Sonko moom nag Gabriel Kane nag daan na xam ne rek moom fa mu nekkoon démb ak bariki démb rek Euh, foofu la rek daal di nekk ba tey ndax nag moom nag bi ñëpp rek bàyyee ki nga xam ni moom moo di Adji bi Sarr euh, moom nag moom moo ko daal di uuf nekk ci wetam euh, di ko jàppale kon nag luñ ci mënti waxee rek moom daf koy daal rek soutenir ba jusqu'aux preuves du contraire ndax nag bu ko nit ñi daal di bàyyee rek moom dina ko daal di jël parce que nag Adji Sarr nag nit la boo xamante ni tamit doomu aadama la te dafa am àq ak yelleef ci li nga xam ne rek moom mooy réew mi waaye nag ci li nga xamante si nag moom moo di ak dundam. ki nga xam ni moom moo di le centre du peuple moom lañ ko tudde rek muy Wally Ballago Seck la golden boy de la musique sénégalaise moom nag Wally Ballago Seck moom rek daal dina defati nag jaloore ndax nag daal dina rek jënd oto boo des ni li muy jar ci doomu xaalis rek mari day taali euh, bari na ba foo ko natu rek daanaka weesu na ko moom nag Wally Ballago Seck moom nag daal dina rek jënd woto boobu mu nekk rek ab oto bu xonq boo xam ni oto bu taaru la waaye nag boo xamante ni bu jéggi dayo la li mu ko jënd nag doomu alal moom mu doon fortune boo xam ni euh, foo ko waaye natt rek daal dina ko weesu mu mel nag kon ki nga xamante ni rek moom moo di Wally Ballago Seck di doomu Thione Seck boobu le ñu naan ko le golden boy de musique sénégalaise sénégalaise la vraiment ren euh, defati na rek jaloore waaye nag defati na rek mbir mu yéem doomu aadama yi ndax nag li mu génn rek ci doomu xaalis jënde ko oto boobule euh, nee nañ rek jéggi na li nga xam ni mooy euh, dayoo ba tax na nag moom nag Wally moomule mu ngay rek di wane li nga xam ni moom moo di boppam waaye nag mu ngi wane rek li nga xam ni moom moo di fortunam te it nag ragalu ci dara daw ci loolu ñu naan la yaay ndeer mu doon loo xam ne nag fi mu toll nii nag moom la rek sénégalais yi di waxee mu mel ni nag kon Wally Ballago waseek moom ah, day day rek labali li nga xamante nii moom moo di karafaas karawaas gars nak nag nee nañ labali fas taxul fas raw ndax fasa nga ca kanam ki ko mën la nag ak xijéem bokkuñu lu waaye mënul neexul lu waaye ragal rek da lay daal di gaañ ku mënul defoo lu yàqu yow waaye ku mënta ba ku mënul ba aussi lu yàqu yow ah. loolu moo gënoon a fees tey ci xibaar yi mbokk yi ñu jox leen dig daje bu beneen